le grand marabout Yatma Biom Diop a quitté ce monde, les talibés guinéens l'ont enterré dans la cour de sa maison. Une vive polémique s'en est suivie entre Monsieur le maire, qui veut délocaliser la tombe dans le cimetière, et la famille du défunt. Au même moment, Fatou Sam, sa seconde épouse, s'obstine à s'accaparer de tous les biens du marabout. salaam salaam monsieur le maire. imam ñu ngi seet baax. chef de quartier alhamdulilah na ngeen def. ñu sant baax kay ça va. alhamdulilah jërëjëf. ça si jàmm. sant yàlla baax alhamdulilah. liggéey bi. naka njaboot gi. sant baax sant baax ça va alhamdulilah. alhamdulilah. maa leen woolu woon ndax yàlla dafa dogal ma nekk kilifa gox bi mu war ma may saytu seen nekkin. ak seen lépp bu ma toogee nag am wax yoo xamante ni bii moom laa dégg war na ma woolu leen ngir laaj leen nu mu demee ndax ci wàllu diine ji ak ci wàllu quartier bi yéen a fi nekk donc war naa xam coow li may dégg nan la demee. monsieur coow li daal leen dafa am ay ndaw yu nekk ci koñ bi. yoo xam ne nee nañ man li ma nekkee moo leen nekku ndax maa nekk chef de quartier ba pare wulbati ku nekk naay cumul de fonction boobu daal moo leen metti te coow loolu ngay dégg yëpp kenn waralu ko dul imam mii moo nekk seen ginnaaw moom mii moo nekk seen ginnaaw man teewaay fii mhm. wax miraas sañoon nga jël lépp teg ko suuf bay man day yakana ni ndu yéen am lu bari loolu umpale ci sen mag yaat ma. lu mu war a ci sama mag yaat ma. gis nga waxu mirage bi la fi indi tay mag yaat ma dañ ci wax ba mu jeex gis nga bi muy dund febarul dara jotu ko mu and ak xelam lama ma man bama ñew ñuma fat samp lepp lo xamne man sama alal la. defar naa sama testament ba pare jox naa ko sa ñaari doom yi na maa wax bismillah jërëjëf ku ne xam na ne ñaari fonction dañ ko fiy tere mënul nekk délégué de quartier bëgg a nekk nayem te sax nag sa nayem gi nga nekkee boo xamul li ci dëkk bi di laam-laamee ak a wax di nga ko fa bàyyi te yem ci la yàlla jox santal yàlla mënta nekk dégg naa leen waaye lii ma dégg ngeen wax ko fi yaakaar naa ni jarul coow ndax moom mii mën na nekk chef de quartier ba noppi nekk adjoint imam comme yow ni nga nekkee imam mën nga nekk leneen loolu wàññiwul dara su fekkente ni li nga xamante ni bi moom la leen askan bi doyee yéen koy def rek te mu baax ci askan bi loolu amul solo li ma bëgg rek mooy ngeen nekk benn juboo su ngeen delloo ci askan bi ngeen nekkal ma fa samay bët nekkal ma fa samay lopp ndax loolu yittewoo naa la ci te ngeen juboo joxante loxo yow mii yaa doy waar. monsieur le maire jërëjëf lii la ñuy doyee kilifa jërëjëf yow sama waay la. wallaay loolu am na. delloo ci jàkka ji ngeen gën a góorgóorlu rek. waaw ndax ni ngeen nodd sama yaat ma bi mu nelawee tiitoon naa. waaye léegi nag sama xel dal na ndax xam-xam bi fi sa bàyyi yaat ma bàyyi woon. Mm-hmm. réerul. yow yaay kan moo la wax xam-xam boobu ngay wax nekkul ci man mi xam nga ni di def gis nit xeet ko góor gi sama waay la woon de te daf ma daan dénk ay secret baax na. Ablaye yow tuuful fu ne ataay bi ngir yàlla jox ñu ñu naan te suba ba léegi yaa ngi fural. bàjjen ngi soog a xam ni yéen bi diisoo na ci sama baay. Mhm. gis nga à chaque fois bu ma déggee Abdoulaye naan dama nekk ndaw buy fooyee boppam. ay reetaan sax la may def. gis nga yat ma ñuy wax daal dëddu àdduna ñoom la jaaxal. mais man mi nga xam ne bés bu yàlla sàkk maa ngi gisante ak moom di déggante ak moom. moo man loolu du man maa ko wax. mooy dëgg la yàlla. Mhm. moom dëgg la waaye yow moom fi nga teg sa tànk bu ko mës a teggi. incha allah maa ngi lay ñaanal yàlla na yéen bi oyof sa kaw. amiin kii goog la def goog xam nga goog kii goog la def. Moustapha le fils unique héritier de son père. doit affronter le poids des responsabilités familiales et les batailles mystiques d'un féticheur qui n'a jamais cessé de détester son père. Même mort, Yatma de Diop est toujours présent pour l'aider à faire face aux différentes épreuves. salaam. yow de. ça va may fii. naka waa kër ga sant yàlla. fii mooy kër Yama Diop. waa fii la. ani Moussa Fall. Moussa Fall. guddi na. bu dee da ngay seetlu mbaa da ngay ñaan dama dama bougé woon ma ne naa fi jaar man la doomu commandant Thiaw. Ah, desa, desa. mel mi. waaw ndeysaan ndeysaan. egg ci egg si biir egg egg si biir salon bi waaw. lii rek mooy surprise nag. ah bon. soxna Fane. oui. yaa ngi si jàmm. ça va may nii. gis nañu gisante ne. waaw ah, trop sax. yaa ngi si jàmm. bien alhamdulilah. alhamdulilah. bien et toi. ça va. ça va nii. non non pas tellement. bien. Mais il ma fait que du C'est c'est elle waouh C'est sama elle. ne Moustapha ngay seet xew na jaaxle. waaw parce que je ngi ko la doomu de Dior. Mhm. dama de rek jaax fi. te nag nga xam dara. Hmm. yaay jigéen bi njëkk ci kër gi di ñëw di ma seet si. ah wax naa dit que nga di Tu la sans le savoir, Mustapha va tomber amoureux de la fille que son père a eue dans un mariage éphémère. waaw mais. waaw Abdoulaye yaa ngi ci jàmm. dem bi. saa yi ma daal que ñoom Ibou laa demoon xam nga rek man amoo feneen fu may dem balaa demoon naa ne ataaya. Ibou ngay bàkkoo léegi. yow daal yaa ngi noonu saa yi nag da nga war a xam ne doom bu góor nga sama bàjjan doom bu góor yombul de. waaw man xam nga du dem fenn comprendre naa quoi man ci Ibou rek laay dem. yow léegi da ngay gunge say cliente daal. Fanta doomu commandant Thior sama benn wóoloo de bàyyi ay Fanta bi ma bokkaloon classe doon toog ak moom benn banc. ça fait longtemps de. mais Fanta tu as complète tu as pris du poids yow yow yow xale màgg na yow mi yaa jël yow mi yaa màgg léegi. <laughs> ci la nekk ça va nii. mbaa nice ah mais mbaa yàquma kii bi rek naa leen bàyyi. non non mosul am. <laughs> waaw mais yow xam naa dinañ dinañ gisante waat Moussa naa la bàyyi nga dem. Ibou neexul naa ko. waaw baax na incha allah soxla naa ko. d' accord merci beaucoup. ok eh Fanta ñu def ginnaw sam papa nekkatu fi te jamm amatu ci kër gi dama bëgg délu pari Paris. Binta yow bo delloo pari lo fay def yow xam nga ne ba nga fa nekké sa papa la daan yónnee lépp loo man yoruma ko. yaay man damaa bëgg yaay baal ma kii dafa bëgg lu yomb Binta xar day weesu mbote. yow moom sa wujju nga ma def moo tax su ma nee guy yi nga ne daqaa ci. lii laay sa ñàkk a yara yow jaar mi sa mag la nan la lay defee wujju ah léegi daal xam nga lu mën a ne may ma ba ñu miraas ba pare bu ñu miraasee ba pare ba ku ne xam foo féete mu xool nooy def ba nga dellu. Hmm.

yow nag foog nga nelaw pour sa wér gu yaram yàlla baax na. dëgg la waaw ki fi ñëwoon Moussa Fall. waaw ku muy ak lu mu doon dox. nee naa la doomu commandant coor bi na man maa ngi dem tëddi. Moussa Fall bul fàtte sa dénkaane bàyyi. te li ma lay wax nañ ko bàyyi xel. baax. li andul ak ci xaan soko bëggé té na ngay and ak dal ak sago da nga di xalé motax du yomb. tànk jëloo soxna salaamaaleykum. waaleykum salaam. sama jërbaat ci loolu. waaw ah, papa. noo def maa ngi nii rek. alhamdulilah alhamdulilah. yaa ngi ci lii. waaw maa ngi ci kay waaw. ah alhamdulilah. <laughs> Euh, an sa yaay.

bu daa màgg sax léegi. waaw ñu ngi si jàmm alhamdulilah. waaw waaw dama jugoon dem fi avocat bi. Hmm. pour laajte boo xam yaat ma dafa bindoon testament bàyyi fi. waaw hmm. moom laa demoon xooli ko. loolu la dëgg la moom. loolu moom pour di xool ci jiwu yaat ma yi moom. Hmm. dëgg yàlla miraas yi. loolu am na ko ndax tëraayu beeg dafa yàgg. alhamdulilah nañu wax ci miraas. dama xam ne daal maa fi mag. te mhm. loolu man rek maa mën a dox. loolu ma yëkkati woon. ki mhm. suba tey maa ngi koy woo xam de xanaa Moustapha dund ma day nelaw ba heure bii. waaw Fanta. wax kan ci néeg bi. yaay di Moustapha laay wut bi sànq ba léegi boîte vocale rek lay jot. ay Fanta. Mm. Fanta lu la dal ba ngay woo ay góor. si yaay nag Moustapha sama xarit kese la. man de xàmmeetuma sama doom. yu yaru soldat bi sa papa def ci yow. yaa war a nekk fii di woo ay xale yu góor. yaay pourtant démb rek seeti woon naa Moustapha. ah nag dara xewu fa de. dama bayi njaboot fi ma jóge te fi ma ne ni sama xel dalatu coowal miras tas na njaboot gi waaye dina am safara lima bëggon nak moy nga am taxaway ci Mustafa. ginnaaw mo tok ci sama place te amugul soxna damay bañ xelu xale duggu dama bëgg nga doon samay bët samay nopp ci wétam woro ko seetaan na sa xel dal mission yi nga doon jox yépp bii ma ci ëppal njariñ li waral mooy dama mësa am cofeel si Moustapha ndax ni mu sellee teyim yow sax boo bëggee ma yóbbaale la dinaa ci waxtaan ak Moustapha. yow moom nii rek ngay toogee ah demoo di ko. ah xam nga li dal si sama kaw lenn jullit lu moom lu metti moom ci kaw jullit rek lay dal. loolu moo tax waaye ki ma ñàkk dafa foor torop ki nga xam ne ba mu lay denc fukki at ak juróom-ñett nga am ñu jekki jékki ànd ak moom ay ati at. nga mhm. jekki-jekki mu dem wacc la day di si du ma du ma ñànqe nag ndax mhm. yàlla moom moo sàq mbindeef mhm. waaye damay daal di muñu rek mais nag li ma dal ci kaw sama kaw dafa metti mhm. dafa metti damaa ñàkk ku foor damaa ñàkk ku ku ku ma sagal ku ma bëgg dëgg dëgg la macha allah wante ndax mbokk gi warul dakk nag yàlla xam na ne duma ko dakk ndaxte nag bi mu demee man maa dese di toog di nekk leen mbokk mm-hmm. bu ko dagg yàlla dagg la ku dog mbokk rek yàlla dog la te ku ko mm-hmm. jàppit suñu boroom jàpp la mm-hmm. waaw macha allah te nee na nit ñi moom gudd fan mi ngi taf fekk ci ñi gën a dox mbokk ñoo gën a mën a gudd fan Voilà. Une <laughs> lu xew yow mii hmm. leer na ma ne rek am na loo bëgg waaye bàyyil xel lii de weer bi sori na de. waaw oh. man nag man aw ma droit ñëw toog sa wet. déet bi waxuma loolu yow tamit j'ai pas dit ça. war nga waxtaan ak Fanta. Fanta. foo ko fekk Moustapha lay waxal téléphone te li ma ci gën a jaaxal dem na ba këram seeti ko ñu fanta kañ la def loolu dem chéri yow ci sa wàll boobu xam nga ni man dama ndax xale bu yaru la te am na xam nga ni loolu dafa am solo décidément ñu daal sa doom bu ko dara kon baax na ana Moustapha nag. Moustapha de daa dugg ci àll bi. Hmm. xam nga taalibe baayam yi rek. taa yi nag bi yëf yi kii yee dañoo xawoon na mais léegi rek dañoo naa naase di ñëw. Hmm. mu manqué woon nag ay xasak xob yeeg. Hmm. ñoom seet ak reen yi. ñoom la dem kese si àll bi. demee ba léegi moom moo nekk ci affaire yi. ah waaw gis nga ko. yaa ngi si jàmm maa def. yaa ngi si jàmm. ani Ulay. Ulay ma nga fa. mu ngi si jàmm ma nga di doy ah di. nee ko di fa ñëw si ko. waaw bu soobee yàlla incha allah dinaa ko. ana Fatou Samb an sa dem ah daa dem marché. daa génn léegi dem marché dëgg la yaay. maa ngi dem sama kër benn xarit. dafa am ay yu ah jot soo demi bu fa yàgg de gis nga maa ngi nii war sa bàjjen mii moom a tax ma toowoon mhm. ah, te xam nga sa yaay su ñëwee fekku la fi dalay indil ay gitangaas te wax jëpp ci man lay teere loolu ndax yaa ciy dimbale demal rek dox fulla ak fayda te ñëw dégg nga yow rek xaar demal te ñëw doxal farata rek te ñëw dégg nga waaw kay mu yaroo xale jikko jikko baayam rek la yor xale bi rafet xale bi dafa baax xale bi dafa juliti xale dafa yi waaye Fat Samb ay man Fat Samb Pape Ba mat na rek waaw alhamdulilahi rabil alamin lépp mat na def naa ko ni ko sa bay daan defee yóbbu naa ko ci jàkka yi mhm. ak si néew di doole yi def naa ko yaay la nga rek sama nga may sama ni man nag ak sa ak ak yaama duna jug ci di la gërëm ñu lay sant bu baax a baax bépp tànk bu sa baay taxaw woon rek mm-hmm. taxawee nga noonu kon nag amuñu sa fay eh, kii di doomu yaay ma jóg gi nekkoon fa waaye doom tax boo ma rombee ini? nii. <laughs> Sénégal neex na de. ah. depuis kañ lañ tëral waa bu bees. romb nit nuyoo far ah yàlla yàlla fay yiw incha ah, a di ñaan yàlla bañ tas rek nak yaakaar bi sama baay amoon foog ñu sàmm ko. incha allah war te amna am waaw demee ci maam yàgg nekkum bàyyi dama toog guddi maam yàgg Moustapha loolu kemtaan la awa ki gën a xamadi papa maa ngi jégalu de waaye gis nga yow aw ma sa jot bu may tontontoog yow li ngay perte yëpp sama réew ne tuuti nga pour xam ko. kii réew dina xamali. yow la kan. yar na Diop moo boole ak yow. bataille mystique, rivalité, héritage, adultère, amour, déception. Tout est réuni dans la première saison de votre série Yapman, l'héritage.